Allah Allah, Allah, Allah. جودا فخذ بي يا الله rabbi shrah li sadri wa yassir li waxlul waxdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum mbokki jullit yi asalaamualeykum mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte dellu si waat ak yéen fii ci rajo xasida online tey nag ñu fas yéene def spécial diaspora di lëndi ndax ñëpp xam nañ ñi démb ndeysaan ba ba minuit onze heures et daanaka ñu ngi woon ci émission bi waaye li ñuy wax rek xew-xew yi nga xam ni moo ñu tënk moo ñu mayul ñu toog euh, di di bàyyi Sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk fii ñuy am ak jaaxle ndax démb rek daanaka bari na ñu ñu interpellé ci ay xew-xew yàlla dogal tey jii mu am benn décision bu mag bu génn ñu ne nañ ci. nañ koy yaatal au moins euh, leeral ci tuuti xelu senegale yi euh, ba au moins nit ñi xam fu ñuy teg seen tànk ndax xalaat yi jaxasoo na lool loolu nag tey jii moo waral ñu fas yéene def diaspora spécial euh, Decreto Cura Italia ñuy ziar ñëpp nag di jiital ci ziar bi xalifatul am Sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ziar mbooleem seex yi sëriñ ak kilifa diine yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal yëpp waaye it di ziar suñu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci rajo bi bu ñu ci jiitalee sëriñ Mouhamadan Mbacke ak euh, sëñ Ibrahima njaay rek mel na ni daanaka tudd nañu ñëpp di sant nag bu baax euh, suñu technicien. sàkku sunu mbokk yi ñu ñaanal ko ndax sëñ Modou mbay Thiam Baye Fall moom saay euh, mën naa ni moom la ñu war a ñaanal ndax tey jii bu ñu demee ba rajo bi mën a am yenn taxawaay yi yàlla ak bakkanam la ndax lépp moom la ñun dañuy ñëw rek woote joxe sunu disponibilité waaye defe naa ni tey ji heure bii bu ñu munee toog moom mooy nekk ci ginnaaw kenn du ko gis jëmmam jooju nag mooy def lu ne kon nag kooku ku maraaj ku mat sant la ku mat a ñaanal la euh, di ziar it euh, sëñ Pape Mokhtar Tall mi nga xam ni moom laa fas yéene àndal tey ji émission bi euh, di ziar auditeurs yëpp di am yaakaar tey ji lii ñu leen fas yéene defal dina doon ak leeraange ci yéen xanaa rek balaa ma def dara damay jox Pape Mokhtar mu dugg nuyoo ñu doog a tàmbali sëñ Pape bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Pape ñu ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weer wu sell wi eh, di jiital ci nuyoo bi ak kàddu yi suñu jëwriñ eh, ak suñu sëriñ di sëriñ Touba sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér eh, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ñu ko bépp kilifa diine. kilifa aada fépp fu ñu nekk ci àdduna bi di nuyu sëñ Pape di la nuyu di la ziar di la jaajëfal di la massaw yi ci coono yi e, di nuyu bu baax it sunu sunu sunu jëwriñ Cheikh Mbacke Mbuub El Hadj ñu ngi koy ziar bu baax moom it ndax xam naa ni ñàkkul sax mi ngi ñuy suivre ci édition spéciale bi e, di nuyu mbokk auditeurs yi di nuyu sunu jëwriñ yi ci rajo bi sëñ Mahamadan ak sëñ Ibrahima ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen ñaanal ñoom it yàlla may leen dëgër laay di nuyu bu baax nag euh, ak ziar sama buntu ci Serigne Touba di Serigne Saliou Mbacke Darou Salaam maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax sëñ Pape loolu nga wax dëgg la euh, Modou Mbaye dañ koy ñaanal nañ ko ñaanal gudd fan ak wér ñaanal ko euh, xel mi yàlla leeral ko yéeneem yimu am ci rajo bi mu yàlla ful ko mu mu romb fii may ko lu kawe njortam ndax dëgg-dëgg euh, euh, ah lii day wax dëgg yàlla yombul euh, bu nu amee vraiment loo xamante ni dañ ko bëgg a saafonte ak askan wi mu joxe disponibilité am taqale fii lii ba yow ma ca Toscana man mi ci Parma keneen feneen ba Touba nit ñi mën ñoo dégg mën a xam yitte yi ak soxla yi ak eh, information yi am ci Italie ak feneen ak feneen kon vraiment dañ koy dañ koy jaajëfal di di ko jéggalu nag ndax jamono yi moom boo boo seetloo daanaka dañuy dañuy dañuy sgaraare li li tubaab yi di wax dañuy xaabaabal rek euh, vraiment situation oblige parce que xam nga cijamono, tolo ci jamono am lu lembe jamono faaw ñu pencoo ko tok waxtane ko di ñaan yalla suñu borom mu safara ko kon señ pap xam naa dama lay delo kàddu bi rek euh, ci édition spéciale bi ñuy wax nit ñi rek ni ñoo ngi ñoo ngi en direct du du retransmission euh, direct spécial lañu def parce que dafa am ay mesures yo xamanteni mom lañu bëgg euh bëgg ci joxe ay quelques délucidations rek pour que nit ñi am mën a am benn taxawaay ci yëf yi jërëjëf sëñ Pape. waaw jërëjëf euh, Pape Mokhtar euh, jërëjëf mbokki auditeurs yi ñoo ngi leen di fàttali ni rek ñi yéen ngi déglu seen émission spéciale diaspora te ji di lundi daanaka baaxoo wu ñu di ko déglu lundi lu ci ëpp dimanche rek lañ ko daan déglu ko mu mel ni démb yëpp ci la ñu nekkoon. Euh, ma gis auditeurs yi ni ñuy apprécier émission bi ndax bari na vraiment mbokk yi nga xam ni dañuy euh, commenter di joxe ay euh, ay ay ay seen juridiction vraiment mu nekk lu am solo ñu koy rafetlu bu baax waaye rek ma bëgg balaa ñuy dugg ci thème bi ñu def ajournement tuuti ci situation bi nga xam ni moom mooy li nga xam ni moom la ñuy dund ndax euh, euh, boo xoolee Italie muy fii ñu nekk bokk na ci dëkk bi nga xam ni moom la xew-xew bi gën a laal bu weesoo Chine ndax euh, jamono ji ñuy wax a yéen actuellement ñi ngi ci vingt sept mille cas yoo xam ni wala lu ko weesu yu ñu yu ñu am firnde ni ñii kat jàngoro ji moom na leen Euh, euh, ci loolu defe naa ni romb nañu tey ji deux mille cent nangam nangam euh, ci ay doomu aadama yu faatu ci biir dëkk bi mu mel ni boo génnee Chine ci numéro boobu daanaka Italie moom moo nekk premier pays boo xam ni ci àdduna bi moom la xew-xew bi gën a laal loolu nag mu ñuy delloo si waat ci beneen li nga xam ni moom lañu tàmm di def fan yi daanaka man xëy na kuy xool sax sama page Facebook da ngay yaakaar ni damay alarmé déedéet alarmé wuñu euh, dañuy wax doomu aadama yi ni leen feebar bi dafa am lu ñuy sikk sàkk euh, ñun ñi dëkk fii xam nañ ni feebar bi am na kon nag war nañu euh, fagaru njëkk respecté consignes yi nga xam ni moom la dëkk bi joxo ndax wax dëgg fa yàlla bi muy tàmbali de nit ñu ko waxee woon euh, lu oyof la luy jàll la waaye ba ñu demee ba ci biir gis nañu ne euh, euh, lu lu lu yéeme la ndax tey jii boo xoolee ci Lombardie région Lombardie rek actuellement ñi ngi ci mille quatre cent morts ndax bokk na ci zone bi nga xam ni moom la yëf yi gën a gën a metti ndax moo ëpp defe naa ni euh, contagiat yi euh, loolu euh, war ñu wan démb rek maa ngi koy wax maa ngi koy dugal sama page Facebook démb image bi gën a touchant ci ci Italie mooy armeel yi Bergamo yi ak église bi nga xam ni dañu rangale maanaam cercueil yi da ngay xool ba yow sa yaram day daw maanaam lii. ci dëkk bu nekk euh, service yi nga xam ni mooy service yi nga xam ni mënuñoo ñàkk Belgique def na ko Allemagne daanaka ci yoon woowu la jëm euh, mu mel ni Europe ñëpp tëj nañ seen frontière euh, ndax situation bi moo ko laaj ndax dem nañ ba nga xam ni ñoom la ñu yaakaaroon ni lu yomb la ñëpp gis nañ ni mi ngi leen di ëpp doole loolu nag ñun ñi nekk fii war nañ ci am rôle buñ ci joué rôle bi mooy euh, gannaaw ba ñu delloo tënku ci sartu dëkk bi respecter loi yi mooy éviter lii nga xam ni moo di dox ci mbedd yi nekk ci mbedd yi di def ay selfie euh, di filmer euh, di filmer ci dëkk yi foo dem sénégalais ngay def live di wax ni xool leen dëkk yi ni mu mel nangam ak nangam ñu éviter habitude yu ni mel ndax nag semaine bii ñu jëm euh, ak lii ñu gis euh, autorités yi dénoncé ko maire dëkk yëpp nee nañu euh, daanaka dañu jox léegi instruction force de l'ordre yi pour ñu def tolérance zéro démb en direct ci émission bi fii am na ku fi woote ci sama dëkk bii nii dañu nangu am na ku ñu nangu permis Euh, man bi may xëy tey gis naa restriction yi ci sama bët ndax gis naa poste de blog yi ñu def fu nekk nit euh, force de l'ordre ma nga fa taxaw te man yaakaar naa ni force de l'ordre bi waroon nañ leen utiliser beneen amam dul taxaw di contrôler ay nit wala dem ci jardin yi di wax nit ñi dem leen ñibbi boo leen duggee ci Facebook bi sax daanaka da ngay am esprit révoltant ndax dem gis jardin mu fees dell ban bu nekkee kenn toog. geej ñëpp yooyu dafa nekk ay habitude yoo xam ni lu yéeme la man sànq rek maa ngi gis euh, sunu tiji régional bi euh, ñu wone sénégalais bi mi ngi yore welam di jàll mu wone mu leer la ni xaw ma ndax day liggéey waaye maanaam daf jamono ji dafa nekkul jamono yi euh, taxawaalu yi dox yitte la toog sa kër ndax mbir moo xam ñi ñi dugg ci saalu ak ñi gis mu di médecin yi témoignage yi ñuy joxe dafa tiitlu tiitaange boo xam ni ku ko dégg ba comprendre ko wax dëgg fa yàlla di nga toog ñun nag sénégalais euh, léeg-léeg dañoo dañoo dese ak nité wax dëgg fa yàlla maa ngi jégalu ci kàddu gi diis na lool ndax démb ak bërki démb ak ba tey sax boo xoolee whatsapp yi ñuy yónnante vidéo yi ay nit crédibilité je dis bien crédibilité kenn amu ko ci ñoñu la ñuy jël def pour prouver pour démontrer que ni Madame euh, corona bi ay montage la nangam sangam di wax ay gardien bu hôpital la témoignage ndax

def ben briefing expliquer situation bi premier cas yi fa génn naka lañ ko jëlee naka lañ leen euh, remonter ci ministre de la république ministre de la république def conférence de presse wax ko maay sëñ bi ñun bu gëmul ay autorité président de la république un ministre de la république un médecin kan ce ñu war a gëm sëñ bi Euh, benn conférencier la ñu war a gëm mu taxaw di la wax sëñ Tuubaa bind na nangam gëmuma docteur bi mais kooku sëñ bi loolu dafa nekk loo xam ni euh, lu desee euh, dese dese ak dese nite la loolu nag ñun ñi nga xam ni ñoo nekk Europe ku ci nekk da nga am rôle boo ci war a joué rôle bi bu njëkk mooy ñun ñi am njaboot nañu woo sunu njaboot yi danaka ñun ñi ko ci gis amna groupe whatsapp bo xamni ci sa keuru fami nga nek lillahi wa rasuli defal audio nga wax ci sa akulay tala jamono yi li ñuy dund fi xamal len image ñi woné docteur yi nga xamni dañ doon fajj yalla japp yalla yalla yalla yalla yalla yalla dogal yi fi nang japp len ci bir parce que bo xolé fi danaka presque 700 médecins corps de corps, médical ñi ngi ci bir yu yu yu yu ñu infecté loolu nag du ay caaxaan sunu réew mee ngeen gis ni amuñu norme sanitaire yu yu baax sunu ministre de la santé ci boppam moo ko wax amuñu dara lu taxaw tey jii lu ñu war a def mooy fagaru fagaru te góor góorgóorlu ba nga xam ni euh, donte mënuñu cee mucc ndax àdduna bi yëpp la law tey jii Afrique boo demee Afrique du Sud ba Égypte fépp la dugg law bu ñu bëggee taxaw di wax amul ak suñ tubaa aar na ñoo nangam ak nangam wax yooyu nañ leen ci génn ba mu set te te te te tënku ci li nga xam ni moom la ñu suñ tubaa sant euh, lu nekk ay nit ndax nag wax dëgg fa yàlla am na yenn wax yi ñu gis ci Facebook yi euh, dafay gàcce dafay gàcceel sax euh, dafa doon gàcce ci murit di ko dégg dafa doon gàcce ci murit di ko dégg ndax euh, sunu xalif la mu def euh, bu ci ñëpp tënku woon topp ko defe naa ni tey jii murit ci dañuy doon exemple ma bëgg nag tey jii ñu njëkkee ci loolu sëñ Pape euh, nga defit mhm. yow it benn vraiment promesse soññaat ñaaxaat nit ñi ñu doog ak dugg ci tomb bés bi di lii nga xam ni moo di décret di gouvernement bi def sëñ Pape bisimilah. jërëjëf sëñ Pape xam naa yokk dara ci introduction bi sax dana xaw a jafe waaye euh, duñu def rek lu dul dellu di ñaaxaat rek ndax ñun su wàll wi ñu féete euh, yàlla séddee na ni euh, démb bërki démb ak démb yëpp dañoo nekk di déggante man ak yow daanaka àjjuma ba léegi ñoo ngi déggante and euh, ak waa sunu mbokk yi waa kades vraiment def réunion vidéoconférence euh, jéem a xool naka la nuy woowee euh, askan wi ci ànd ak dal ak it éviter yenn yenn situation yi éviter aussi yenn canal de désinformation yi parce que jamono bii ñuy wax bu ñu demee ba sunu ministre génn Euh, ak ak ak ak ak xadar yu euh, wax ni euh, maanaam dañu dañu dañu dañu gëmut gëmul ni non donc ça dir que que ñun Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp ndax Euh, xolaat suñu bopp weesuwul euh, ñi nga xamanteni ñom la ñuy wowe keur docteur euh, yow bo wopé lu la ti dal bo dem fofu rek lu de téléphone bi xatara yu rek ndax mom bo ba légui wax dëgg yàlla euh ma ma ngi dégg message yi <laughs> waaw gis nga mom kay yalla yaa ala baxna mhm. euh yakaro fenn fudul keur docteur mhm. euh tay ji bu fa bu fa bu fa ndogal euh ñu ñew war ñoo euh lu lu xew rek da nga naan xana amuñu président wala amuñu dara bañ nañ ko ba dëkk ba bu neexul sax dañ naan président bee liggéeyul waaw kay kon nak président bi bu génné wax waxuma waxuma la dara yow nga doon taalibe ah sa wasila eh, sa ki nga xamante ni moom nga gëm ni moom mooy Serigne Touba ci suuf mm-hmm. génn eh, daal di nangu dogal daal di nangu xam ni a ah, lii am na bala bañ na ko ba yëkkati sax contribution boo xamante ni da koo jël teg ko ci kaw taabal ji booba rek la la bi yëkkati rek teg ko ci kaw taabal ji loolu waroon naa wane ni képp koo xamante ni taalibe nga dangaa waroon topp ci ginnaaw loolu sëñ bi def mm-hmm. te fa nu yaatalee loolu ndax kii teg euh, sëñ bi teg euh, dara ci kaw taabal ji ne nañ nañ ko jubloo ci lépp loo xamante ni mi ngi jëm ci wér-gi-yaram wi Euh, ñu fexe ba euh, nañ ko féetale foofu. Mm-hmm. kon mii bu dee man taalibe laa tamay tamay woote ni taalibe laa mu doon dëggu ci man war naa topp ci ginnaaw sëñ bi. Mm-hmm. waaye sëñ bi euh, ñun murit yi danoo bari te wute. Mm-hmm. dafa am ñoo xamante ni mariirandoo gi rek la. fo am ñoo xamante ni fanatisme bi moo leen ci dugal. te loolu bi wootewut loolu. yoon wi dafa woote li nga xamante ni sëñ bi liggéey na ko fi ba teg ko fi ñun ñu fexe nun ko jëmee ba wesaare ko mm-hmm. ñu def ba wane ko feneen ak feneen mm-hmm. sëñ bi jàmm rek la mësta woote mësta woote fitna mm-hmm. waaye ñi nga xamante ni ñu ngi génn ci sociale yi na leen leer ni lii ñuy def yëpp fitna la te kenn kenn santu leen ko ndax sëñ Muntaxa santu leen ko sëñ Bass Abdou Khadre santu leen ko te fa ñu jokkoo it te wasila yañ jokkoo it kenn santu leen ko kon ñu ngi vraiment woo nit ñi ci ñu am raison garder ndax nag yaakaar naa ni looy laam-laamee sëñ Pape Wuhan daanaka mook Sénégal a tolloo. Mhm. dëkk Wuhan bee daanaka dix plus de dix millions d'habitants la. la ko Sénégal ëppee bariwul. waaye xoolal la fa faatu. nga di ko suivre yëf dem dugg biir Europe Italie gii joxe nga chiffre yi léegi li fi faatu kenn xamul nu mu toll en vingt quatre heures démb trois cent et quelques personnes faatu fi en nit ki nag war a mën a taxaw nag nan ay am naak amul man yaakaar naa ni nit kooku euh, yoon sax war na mën a jóg taxaw ci kawam man jàpp naa ni yoon war naa jóg taxaw ci kaw ñooñu nit ñi nag bu ñu yaakaar ni police postale amul yor naa sama téléphone maa moom sama page Facebook lu ma neex lay wax hmm. xam nga ñun malheureusement dañ on n'est pas informé on n'est pas préparé ci réseaux sociaux yi hmm. yag nañ ko wax ci émission yi yag nañ ko wax ci rajo on n'est pas préparé ñun malheureusement da yii dafa xew rek ñu xëy ci rek ne ci cëpp te waajaluñ suñ bopp yaakaar nañ ni man sama vidéo bu ma ko defee man maa ko moom waaye na la leer ni vidéo boo fi def police postale mën na laa topp ba fuñ la bëgg fekk danañ la fa fekk ndax Facebook loo ca def matoo ko mhm. kon buñ ciy dugg nañ ci dugg wax lu nu xam buñ ciy dugg nañ ci dugg informé wu ba pare soog ciy dugg ndax ñi war a wax bala ñoo wax dañuy gëstu ba noppi soog a ñëw wax nit ñi tëbuñu tëb di wax te it bu dara ne këtt ni jonn ci àdduna wërngal këpp neewuñu ci ruq bii la am wala ci ruq bee wala eh, nañ ma jéggal ci kàddu yi kaña gi pax bii la dugg nga ne ko déedéet pax bale la dugg xëppal fii póotit werante wuñu loolu li ñuy werante mooy c'est une pandémie mondiale c'est une pandémie mondiale kon dëkk yépp dañoo war a tàmbali di jël seeni précaution waa sëñ bi économie bii nga xamante ni mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy yàq ci àdduna bi chinois yi nga xamante ni ba leen maawo xiifloo gëmloo leen ne leen gëm leen seen bopp amuñu amuñu dara waaye am nañu ay nit dem leen ngeen liggéey ci tool yi benn kenn ci seen doom na toog ci ci cité bi jàng mais pourtant ñoom seen biir dëkk noonu lañ pauvre waaye liggéey moo tax seen dëkk am tolluwaay bii ñu toll nii tey lii dal seen kaw nga def yi fi caaxaan yi fi caaxaan la bu doon yi fi caaxaan duñ ko faagaagal mu taxawee ne mm-hmm. tey jii moo ne ñoom xeex nañu ak moom ba daanaka bokkatuñu sax ci pays yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a Euh, bëri ay ay ay nombre de personnes yu contaminé wu bokkatuñ ci te pourtant kenn fekku leen ca xeex ba te moo ne tey jii ñoom ci seen bopp ñoom ñooy dem ci pays Europe yi di leen di leen dimbali ak di leen jàppale kon nañu delloowaat suñu xel ndax am na yenn raisonnement yoo xam ni ku nit ki di def dafa dalalul sax xelu ñi nga xamante ni ñu ngi senegal di suñuy mbokk di suñuy njaboot ndax mënoo xëy suba ba ngoon te mag woolu woowu la wala rakk woowu la wala jarbaat woowu la wala yaay woowu la xool naka nga def xool ci lan nga nekk mm-hmm. te moo ne day ñun ñii ñoo gën a am préoccupation sax ci ñoom waaye duñ leen ko sax wan ndeysaan tax mm-hmm. ñàkk jumtuwaay yi nga xamante ni xam nañ xel ni suñu réew am na foo xamante ni bu fi yëf ya tolloo dana doy waar lool ñaanuñu ko yàlla est-ce que jaaduwul ñu toogaat xalaataat naka lañu ñu mën a àndee ñaax suñu nguur yi nañ tëj frontières yi ni ko ñëpp defee nañ tëj frontières yi jéem a xeex loolu nga xamante ni nombre boobu noonu la toll ñu jéem a xeex ak moom isolé ko mu tege na le ñu yemale ko xam ne ñun ñi suñ doole eggul ci ñu egg ci yenn yenn yenn nombre yi ndax man bu may dégg ñuy wax ni ñu ngi créer benn euh, ñu ngi créer ay postilettes yi yoo xamante ni sans postilettes yi ay ree la may def ndax ñun demaguñu fenn

lañ war a def nag mooy ñu xool solidarité bi nekk ci suñu biir lañ war a def mooy ñu xam ni am nañ suñu ay mbokk yoo xamante ni fii la nekkoon ak ñun ñu noppaliku diir bi lii amee am nañu fi ay mbokk yu noppaliku te tey jii kenn mënu leen yóbbu senegal mm-hmm. seen koor yaa ngi fii tëdd ku ne xam na ni ñi fi dee tey seen hôpitaux yaa ngi nii tëdd ndax seen mbokk yi mënu mënuñoo génn ndax divieto bii fi am tey te ku ne xam na ni tubaab dafa bëgg di def funérailles Mm-hmm. mbokk yi dañuy obligé di leen bàyyi ci casa mortuaire yi mm-hmm. te casa mortoire yooyu dem nañu ba nga xamante ni daanaka fees nañu fees nañu ñoom ñëpp léegi ñun suñu mbokk yi nga xam ni ñun dañ leen di téye foofu nëgandiku rek pour yóbbu leen Sénégal ñun ñuy woo sax pour ñu ñëw jël si leen fan lañ leen di est-ce que jaaduwul tey ñu toog commencé waat di xalaat yeneen xalaat que ñuy toog di diingaat sëñ Pape mm-hmm. doon waar de doon yéeme na déedéet maanaam xam naa ni xam naa ni daal eh, eh, wax ju wax yi wax yi maanaam kii bi moom mu nes na cee toog fii ba suba waaye daal eh, bépp immigré bu ci nekk am nga ci responsabilité ci sa njaboot ci ni ngay wax ak ñoom ñu dellu siwaat rek ci sunu temu tey bi ndax boo xoolee am na ay mesures importantes démb yu ñu doon wax ni démb bi ñi def émission gouvernement bi ñi ngi won conseil des ministres té itam defaat nañ conseil des ministres ci ngor gi wa commencé euh, euh, manam publier décret yi nga xamni mo nara accompagner crise bi nga xamni mo xew fi ñu tuddé ko décret de coura Italia euh, jëm ci lal ci ay patch yu bari euh benn bi mi ngi commencé ci wàllu fisc bi ta taxe yi nga xam ni moom lañu ñu war beneen bi hmm. jëm ci justice yoon amortizzatore sociale bi nga xam ni moom la liggéeykat yi eh, eh, di di di xaar jamono ji hmm. eh, beneen bi jëm ci lavoro ak previdenza sociale maanaam xeetu hmm. retraite yeeg pension yeeg yooyu am boo xam ni itam jëm na ci imprese yi mooy mesure extraordinaire yi nga xam ni moom la ñu jël ak li jëm ci inter locale yi mooy communes yeeg yooyu mujj bi laal fi nga xam ni mooy wàllu sport euh, maa ngi koy wax sànq Macron sànq bi mu jëlee euh, kàddu moom it mesure yu mel nii la def France bloqué yi nga xam ni moo di facture courant ndox téléphone euh, suspendre réforme pension bi nga xam ni dañ ko doon waajal voté

le monde ne sera pas comme avant. Mhm. tey dit, vol aérien yi arrêté nañu presque. Mhm. Euh, Lolo, c'est des milliards et des milliards tey dit, mën naa ni euh, durer un mois. compagnie mhm. aérienne yu ndaw yëpp dañuy faatu. tey dit, compagnie aérienne yi nar a dund mooy ñi nga xam ni dañuy lënkaloon créer ñoom seen de genre alliance. Mm-hmm. ñoo ñoo nar a ñoo nar a mën a résister boo xoolee sax Italie ñoom gaawantu nañ ci nationaliser lii nga xam ni moo di Air Italia parce que buñ ko nationaliser loon day day say euh, mesure yooyu tey jii ñun bi ñu ci gën a intéressé pour le moment mooy ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ci dëkk bi doon ay liggéeykat avant tout ñi doon ay mm-hmm. jaaykat ñi doon ay ay ay ay borom njaboot njaboot nag boo ko waxee mooy ki nga xam ni dafa dëkk ci kër mo xam da nga yore lias mo xam da nga jënd kër gi am ay lu la war weer bu dee bu nekk mooy mbër mi nga xam ni saa yoo ko daanee mu dëkkaat la tey ji mhm. boo ñu doon jàngatal euh, mesure yooyu mesure bi ngi njëkk nga xam ni moo jëm ci wàllu fisc ak liggéey naka nga ñu koy expliquer xam naa ni tey ji mënuñoo dugg sax ci spécifique bi dëgg-dëgg waaye war nañ mën wax ci ligne générale yi nga xam ni moom la daanaka moom la gouvernement bi dégagé ba nga xam ni fii ay fan. dinañu mhm. mën a xam par exemple patronat yi ak ñi leen war a dugal yan condition lañ leen dugalee sëñ Pape. waaw jërëjëf sëñ Pape euh, c'est vrai euh, mesures yi décret bi signé nañu ko euh, mais sànq ba ngoon gi. Euh, ba fi ñuy waxee nii sax sànq ba léegi jotaguñu woon euh, décret bi mais comme chaque fois ñun euh, organisation syndicale yi ñoom bu décret bi génnee ñoom dañ leen koy yónnee avant ñu ko ñu koy publier gazette officielle pour laaj leen ñoom seen xalaat lan lañ ci xalaat ak lan moo leen ci dul neex daal ndax dafay am yoo xamante ni peut-être euh, ñay toog ca bureau ya euh, di di defar mesures yi xëy na ñoom duñu ñu foofu ndax am na ay agenda yoo xamante ni mel di cinque dipendenti la ñuy yore te parti sociale yi comme ñoom dañuy bëgg di. de téléphone bi moo moo noppalikuwul benn yoon maa ngi jégalu bu baax. Euh, comme ñoom dañuy bëgg di tutelaare ak jàppale mm-hmm. euh, vraiment euh, laboratoire yi yëpp a crescere il numero dei dipendenti yi nekk ci biir azienda bi am na luñ ci jot a for tuuti ci décret bi ndax yow xam nga ni mu demee waaye pour suñ mbokk auditeurs yi ñuy déglu Eh, ñun am nañu ay canal yoo xamante ni avant mu ñu koy publier sax danañ danañ ci am luñ ci luñ ci luñ ci root eh, damay gëm ni eh, mesure yu courageuse la mesure yu courageuse la yoo xamante ni li ma li ma jàpp rek mooy xëy na gouvernement bi daf ko sax yéex a def daf ko yéex a def parce que xëy na daf ko waroon a accompagner il y a deux semaines mesure yi mu jël ni mesure drastique yi mu jël ni que ni bu kenn génn bu kenn dem fee moom la waroon de du def deux semaines mu accompagner woon ko ak mesure yi mais comme Italie dafa tolloon ci benn moment boo xamante ni euh, dafa fioraare woon maanaam tettoo euh, débito bi. Euh, pacte de stabilité bi. voilà ak les kiiwu stabilité bi donc mu doon demander au niveau de l'Europe pour négocier pour fioraare ko ak yoy demandé walé aide aussi au niveau de l'Europe parce que tam euh, Europe aussi xawoon a taaxeerlu ci yef yi parce que Europe dañ ne rek pandémie la euh, ki la épidémie la euh, donc Italie ci la fa waye bañu démé ba xamni vraiment pandémie la l'organisation mondiale de la santé a déclaré euh, l'état de pandémie ci Europe naksoga Euh, xam ni lii nekkatul caaxaan mais malheureusement ak euh, la déclaration de garde nga xamante ni moom duñ ci sax dellu si waat du euh, place malheureusement lañuy ñuy xol ñom moy l'économie avant les personnes mais sant yalla alhamdoulillah bi nga xamante ni le gouvernement italien euh, liggéey na liggéey bu am solo ci mesures yi euh, maintenant mesures yi nag am na loo xamante ni ñun ça couche touche directement euh, boo xoolee première partie bi pratiquement titolo uno bi ba ba presque dix-sept articles yi loolu yëpp gouvernement bi dafa dafa def ay ay mesures yoo xamante ni dafay dafay renforcer pratiquement le système sanitaire maanaam jàppale Eh, kati ya fa nekk eh, eh, dooleel leen dolli leen xaalis ba pare créer aussi système boo xamante ni ah, pour yokk liggéeykat yi yi nga xam ni ñu ngi ay ay ay médecins spécialistes lañu te ñu nekk dans di jàng programmé nañu jël ci ay nit lu tolloog deux cent ak cent infirmiers yoo xamante programmer nañu aussi pour jël leen pour insérer leen dans le dans le dans le monde euh, de la santé defal leen contrat à tempo déterminé maximum 6 mois parce que boy def euh, bilan yu melni aussi da ngay mesurer aussi temps bi nit ki di liggéey TFRM lepp indemnité am et tout dang koy dang koy souralé ci fofu it dama fu bëgg taxaw tuuti parce que ñun am nañu ay doom yo xamanteni ñu ngi fi jàng nañu amaana euh, def euh, pharmacie wala ñu def médecine euh, nañu informé wu si parce que war nañ ci am cër ñoom mm-hmm. waaw xale yooyu war nañ ci am cër parce que comme urgence la te it c'est une possibilité aussi ñoom it ñu ñu ñu mesurer seen boppu je ne pense pas que Italie toll ci jamono boo xamante ne danaan prima yi tollu tolluñu foofu mm-hmm. donc suñu suñu suñu doom yi nga ni vraiment ñu ngi dans le domaine de la médecine wala de pharmacie et cetera euh, suñu xoolee yëf yi ba xam yoon biñ leen mën indiquer pour nous ñu jaar fa pour dem def demande il y a 100 infirmiers aussi ak euh, euh, presque 200 médecins spécialistes ñu dem def demande yo vraiment qu'ils se mettent improva prova

mais ne la mën nga ko fay intro fii ak 31 mai. Mhm. donc soit da nga koy fay fii ak 31 mais wa ilaa euh, ñu may la nga def ko ay raate ba ay cinq mois cinq raate maximum. Mhm. Euh, donc ça veut dire que euh, décret la boo xamante ni sonalul ki nga xamante ni mi ngi toog ci kër gi. te donte yow it yaa ngi toog ci kër gi def na intervention aussi ci liggéeykat yi nga xamante ni dañoo toog ci kër gi. Mhm. parce que tam nit ki bu fekkente ni da ngay euh, chaque fin du mois am na lu la euh, liggéey euh, sa sa sa patron warloo euh, loolu rapport bi ngeen am yow ak mom, la ngay liggéey moom dalay fay par rapport à un événement particulier par rapport à une situation particulière bo xamante ni c'est national le gouvernement justement bu fait intervention pour la fabrique bi ne a ah la nga waroon a fay ci ay taxes la nga waroon a fay ci ay euh, contribution la euh, teggil la contribution yi ndax kii toog ci biir kër en tant que gouvernement dinaa ko jox contribution figurative je pense que c'est c'est vraiment courageux parce que fabrique bi du fay contribution pour laboratoire mais l'État, bi moom muy jël en charge contribution figurative mm-hmm. donc c'est c'est vraiment courageux en plus état bi ne liggéeykat bi am nga ay forme yoo xamante ni aussi mën na la permettre pour yow nga toog ci kër gi mooy su fekkee sa fabrique dafa nekk ci situation boo xamante ni am nañu ay cas coronavirus ci biir société bi xamuñu vraiment médico compétente bi xelam dalul pour que ñu mën a isoler laboratoire yi yëpp production bi dafay taga témbe il est préférable pour que ngeen dem case intégrazione dem na ba définir sax case intégrazione yi ba dem ba relancer waat tokkaare waat encore ñi nga xamante ni dañoo nekkoon cassa integrazione in deroga avant problème bii di am mu xamal leen ni leen même yéen ñi nekkoon cassa integrazione in deroga am ngeen possibilité tey ngeen euh, sospendere ko sostituire ko a cassa integrazione ordinario cigo bi mm-hmm. mm-hmm. fino a nove settimane mm-hmm. donc

Euh, ak pression yi mu am. Mm-hmm. Euh, fan yii ku ko xool di nga xam ne ku dëgër la te ku xam ku xam fi mu jëm la. Mm-hmm. Mm-hmm. vraiment vraiment je salue le courage qu'il a eu. yombul nag ndax. moom moo nekk le premier pays en en Europe bu yëfi dal. te nag dalu ko ndànk dafa ñëw dal ko dal bu metti semaine bii di ñëw di ngeen gis déjà Espagne ñi ngi ci dix mille conta contaminé.

seen industrie daanaka bi ci ëpp man zone bii ma nekk Toscane nga xam ni. tey jii hmm. damay joxe kaaw conceria yi. conceria bi fi gën a mag soixante dépendante la am ñeneen ñi ay trente quinze vingt. artisanato bi dafa am doole fii ba nga xam ni. manufacture bi hmm. loolu yëpp daanaka tey jii ay ay sociétés yu ndaw lañ yoo xam ni bu leen état bi jàppalewul. Euh, euh, daanaka économie Italie moo nar a nekk à te nag loolu mën naa ni mooy cislaayu. économie italienne mooy piccole média imprese yi kon vraiment euh, lu lu lu lu lu lu décision bu courageuse waaye décision bu ma rafetlu la Benen bi aussi gis naa ko ñi nga xam ni euh, euh, dañu am centoquattro parce que fofu, ñu bari comprendre luñ ko maa koy publier sank sama page Facebook ñu bari laaj nañ ma xam nga centoquattro mo la daan may ngay tok sa kër ñetti fan ñaari ñaari weer yi yokkaat nañ ko ba yóbbu ko ba defe naa ni euh, euh, vingt quatre journée nga xam ni da jël doodi si doodi si euh, foofu tam pap doo ko mën a gën a tasaare ak li nga xam ni moo di dégguma sëñ Pape parce que waa ji ma sonal nii téléphone bi moom laa doon wuyu léegi ne ko na ma jéggal rek ba ma pare dëgg la <laughs> dëgg la dëgg la dëgg insister rek mm-hmm. gars yi noonu la def léeg-léeg dañ lay woo nga bañ wuyu ñu di woote mm-hmm. maanaam maanaam maanaam euh, euh, euh, congedo bi nga xam ni dañ ko yóbbu à cinquante pour cent nga xam ni lu ci ëpp trente pour cent hmm. lañ ko daan def léegi hmm. ñu mën la dem ba nga xam ni dinañ la may cinquante pour cent boole si hmm. ñi yore assistanza disabile ñu defal leen douze jours au lieu de trois jour nga xam ni dinañ ko mën a jël douze jours ci mois de mars bi douze jours ci mois de avril bi yooyu tamit ay xeetu jàppandal boo xam ni daanaka liggéeykat yi dina leen taxaw bu baax seen papa waaw xam nga sëñ Pape yaa ngi wax sànq ci Conte heureusement heureusement laay wax euh, ba nga xamante ni avocat la du un politicien fin euh, bokkul ak ñi nekk ci parti yi nga xamante ni ay lobby rek la ñuy dox te gëm naa ni gis nga itali bu génnee ci lii itali diventera euh, il elle deviendra un pays vraiment fort devant à l'Europe parce que actuellement gis nga système sanitaire euh, euh, santé bi Italie di di di di technique, nii ak njàppandal yi mu tek japp am ko bu baax Italie bu dëgërul woon non kon mara d'Italie ken waxatu ko. Mm-hmm. te vraiment Europe dina gën a respecter Italie. Mm-hmm. motax euh li tax ñuy wote solidarité à ce que ñun sénégalais yi nañu duggal suñu loxo ci yëf yi une vision pour parce que nous ngi déjà parce que ni euh, c'est le moment ou jamais c'est le moment ou jamais nga duggal sa loxo ni yow ci ci bi nga mais sama mbokk sénégalais aussi nañ def attention ci euh, bi ngay mm-hmm. ni euh, ma nga maternité. jël na congé de parental yi nangam ak nangam lii ñëw na rek fàtte na la ca des. Mm-hmm. nañu def attention ci ci ci loolu. mais mais yow yow lan nga leen di suggérer Pape. waaw man li may li may euh, xam nga décret bi comme dafa wax ni au moment u tëj naa école yi. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni. Euh, comment dire dañu yor ay xale yu nekk si biir kër yi te ku ne xam na ni loolu c'est un problème pour pour pour liggéeykat yi bu xale yi nekkee ci biir kër gi euh, ñi nga xamante ni dañoo bëgg usufruire congédi yi ñu jox leen fino a cinquanta per cento della retribuzione fino a dodici giorni xaw ma quindici giorni la wax doom ji nga xamante ni am na euh, ba douze ans 12 ans lay am sax douze ans ba 16 ans mais euh, ñooñu benen façon la façon lañ lañ koy ko approfondir parce que am yu bari yo xamanteni inshallah dimanche lañ koy approfondir mais mu retourné wax ni ki nga xamanteni mi ngi liggéey te euh, am dom ju tuuti te yor babysitter ci kër gi jël babysitter ñu jox ko 600 euros mais 600 euros boobu benn yoon la de parce que xam nga sama mbokk yi man tey ji am na ku ñu ma bind message am na ñu ma woo di ma laaj 600 euro yi nu muy demee ndax par weer la. ba daan ba daan tey nag sonal nañ ma tey. waaw xam nga foofu. xam nga moom tey jii daanaka ñoo ma def assedio xam nga Toscana dama ci am vraiment une forte euh, euh, communauté. waaw ñoom daanaka fi mu ne nii sax. Euh, benn ben, ben, ben, ben, ben, brochure lañ ma yónnee boo xam région Liguria nee nañ moo ko def. Hmm. man bon awma ci euh, vraiment awma ci hmm. lu leer. Euh, hmm. maa ngi la ko yónnee nga xool ko mais maanaam pour wax ni ñoom ubbi nañu ba déjà commencé nañu depuis parce que depuis semaine passée laa ko jotaan lii. Sénégalais yi ñoom seen canal yoo xam ni des fois man damay jaaxle bu loi amee. siamo lì su diciamo, un piano straordinario di sostegno per uh, uh, l'accudimento dei figli durante il periodo di, di sospensione scolastico legata all'emergenza. Tu, tu a livello regionale? Mm-hmm. est tu a livello regionale? Bi livello regionale la regione mm. Liguria mm-hmm. moo ko def. waaw waaw léegi nag xam nga foofu. xam nga foofu sëñ déjà ba nekk Toscana di ma laaj nan la ñuy def modulo bi man leen mënu leen ko déposer parce que kii seen euh, lu ci seen yoon région de Liguria bu dee moom moo moo ko ubbi. ñi dëkk Liguria rek ñoo ko mën a def. ah xanaa Toscana euh, Battizzare boppam daal di tudd Liguria. waaw non su boobaa da ngay dem ba da ngay dem ba Aula nga changer résidence. <laughs> nga changer résidence kii bi bu la laajee nga ni man fii laa dëkk quoi. sono sono sono toscano ligure. moo tax moo tax gaañ yi il faut que ñu ñu ñu ñuy tey ci yenn affaires yi euh, am na benn particularité bu ma bu ma bu ma fàtte sax ci euh, parti parti bu njëkk bi mooy parti fisco bi. Mm-hmm. Euh, xam nga am na fi sunu mbokk yoo xamante ni dañoo defal seen seen jarbaat wala seen benn xarit wala seen benn mbokk aussi. Euh, contrat. Mm-hmm. mooy mooy contrat banante yi domestique. voilà ñooñu aussi suspendere nañu euh, système prévidentiale bi. Mm-hmm. Euh, parce que normalement mi ngi waroon scadere il 10 di aprile. 10 di aprile bi. voilà voilà ñoom it xawoon nañ leen fàtte tuuti parce que xam nga catégorie boobu souvent ñun dañ koy fàtte. <laughs> parce que ci suñu biir am na ay datore di lavoro Mhm. dañ leen di xaw a mhm. eh, mais mooy defal yàlla yi rek. waa bàyyi defal yàlla bi waaw mais xéwal la loolu yëpp ci xéewal yi la. Ah, mais babysitter bi man bëgg naa ci taxaw tuuti parce que waxul rek ne la babysitter six cent euros complessivamente mais dafa la wax servite servizi babysitting mhm. donc yow da nga war a démontrer que ni kii mi ngi def service yi babysitting parce que demande bi dañ koy lié ak site IMS donc demande bi da koy def euh, à travers patronat bi et cetera mu dem directement IMS. Mhm. télématiquement. Mhm. donc mais il faut nga démontrer que ni yow da ngaa jël suñ pap mu dalay defal baby sitting mhm. nangam ak nangam service li la lay defal nangam ak nangam il faut nga démontrer ko. donc

du lepp moy dem foofu parce que casse intégration yi mesure bi nga xamanteni tek nañ ko nombre de asiende nangam ak nangam déjà à Parma rek y avait vendredi ba vendredi passé y avait 250 cent cinquante asiende yoo xamante ni ñu ngi demandé cassa intégrationnelle mm-hmm. te asiende la ñu yoo elles sont en difficulté moy petites et moyennes entreprises yoy nga doon wax sànq mm-hmm du ñu ci yenn dimension yi meluñu ay maa ngi jégul ci publicité bi ay bari la nga xamante ni ñoom contenimento bi dañ koy am. ñoom amuñu problème léegi dafa am tam ñu ma laaj ñu bari parce que ñi hmm. nga xam ni dañuy fay mutuo. waaw euh, di ma laaj ndax suspension mutuo bi ci ñëpp la. Hmm. waaw man nag euh, comme gisaguma euh, décret attuativo bi. décret officiel bi waaw vraiment. Mhm. Euh, gisuma fi maanaam dafay dépendre ci sa euh, ci ci ci ci ci li ngay li ngay am ci at mi ak li nga. Mhm. defe naa li nga li la fay ci euh, période nove nove mese provvedimento. Mhm. xam nga. comprendre guma vraiment naka la ñuy def ba bloqué. ak kan nga war a am. man mi man mi volet mutuo bi approfondir guma ko quoi. waaw wax dëgg fa yàlla mais gëm naa ni euh, dinañ ko tare ba ci mm-hmm. parce que ñoom ñu ngi jàpp ni mesure yi ñu def dafa war a dem ba euh, côté juin juillet maximum agosto mm-hmm. normalement décret bi foofu la war a yem parce que euh, gisuma ci fenn fu ñu def septembre ci décret bi mm-hmm. da date yi laa doon xool mais gisuma fenn fu ñu def septembre donc décret bi war mëna mën dem ba agosto donc ça veut dire que euh, fi ba juin peut-être wala fi ba 31 mai bo waré fay mutuo mois bi di ñëw ak mois bi ci top peut-être mhm. dinañ la ko suspenderel mhm. peut-être défal lako ay raté té duñ la faylo sank duñ la défal sanction wala duñ la faylo ay intérêt donc ci fay intérêt ci di moore ah, voilà voilà justement comme ni ñi défal ñi wara fay contributi ak yoyu rek quoi mhm je pense que ñom ci direction bobu lañ leen di duggal quoi ñom aussi. mais kat yi nga xamanteni dañu nek aussi en quarantaine parce que liir naa ko ci décret bi. ñoom aussi malatia la ñuy nekk malatia normal même bu ñu feebarul. parce que quarantaine ça ne peut pas dire que da nga feebar. quarantaine c'est parce que dañ lay mettre ci ci ci ci ci alsikuro fu wor fo xamanteni pour bañ. Euh, bu fekkente ni maanaam dañuy njortu ni yow xëy na euh, jege woon nga nit ki ko am ba tax na dañ lay isoler pour bañ yow nga propager euh, virus bi donc isolement boobu ngay def aussi sa docteur da lay defal certification ne mais kii nu mu tudd certification ne médica yónnee ko IMS malatia ngay nekk dañ lay fay malatia normal comme si c'était dara xewul donc loolu aussi nit ñi jaaxle. parce que am na ñu nekk en quarantaine di woote aussi di laaj mais man nan laa war a def mm-hmm. ndax dama koy jël férié wala duma ko jël férié euh, ak no man leen non il faut arrêter bu leen jël benn férié comme aussi am na ay aziende yoo xamante ni spéculare ci problème bi am na aziende yoo xamante ni vraiment ñu ngi ciy profito bëgg dund ci kaw liggéeykat yi di demander liggéeykat yi. tey jii rek yónnee nañ ma ñaari sénégalais yónnee nañ ma ñaari lettre de licenciement voilà te Conte wax na ko président Conte wax na ko kenn warul licencier kenn ci période Covid. yaakaar naa Fra Doué Maïs fii ba deux mois kenn mënul licencier kenn. kenn mënul licencier kenn. président mm. Conte wax na ko. Mm-hmm. Euh, te bu la kenn toujours ci wàllu wàllu kër yi dama koy bañ fàtte. ndax xam mm-hmm. nga bari na ay sénégalais yu fi am ay négociations. Mm-hmm. ñooñu euh, mooy ñi nga xam ni dañu am crédit d'imposte yor ay boutique Euh, daan fay afito euh, afito bi ñu bari dañu yaakaar ni afito bi liggéeykat yi la mais defe naa man afito bi ñooñu la riguardare ñi nga xam ni dañu am crédito ñi yor négoce ñi yor négoce yi ñooñu la ñooñu ñooñu euh, maanaam te nga xam ni dañu am ay immobilier yoo xam ni hmm. catégorie catastale bu rientrare ci ci uno yooyu commercial si ñoo koy mën a wax ah. avocat yi commercialiste yi consulente yi borom négoce yi ñiy fay kaanone euh, location yooyu. voilà euh, article boobu ñooñu lay waxal bokkul ak. Euh, Cheikh Mbacke Mbuub mi war a fay. affaire tëb bari na nag bari su sayer gi démb ba léegi ñu may woo. ndax yaakaar na ni duñu fay luyaas dootuñu fay mutuo <laughs> loolu aussi il faut ñu leeral ci parce que Euh, état bi mënula jox amortisateur ba pare jox la lépp ba pare nga téye sa xaalis bañ a fay déedéet. dëgg dëgg dëgg dëgg euh, buñ la jàppalee ci lenn leneen li da koy def. waaye nag. Hmm. mais ni sayer rek bëgg téye lépp moom day doy waar. <laughs> Euh, wa wàllu wàllu wàllu kii bi tam ni ñu koy waxati xam nga démb yaa ngi koy wax. maanaam hmm. nas bi yeeg. Hmm, agriculture kii bi NASPI ak euh, euh, disoccupation agriculture yi mm-hmm. ak ñi nga xam ni euh, maanaam dañuy liggéey ci secteur agriculture ak spectacle mm-hmm. mooy ñeneen ñi mooy ñiy def koko kooy defe naa foofu mm-hmm. tam am na ak njàppandal bu ci am waaw waaw xam nga laboratoire agricole moom dafa nekk liggéeykat boo xamante ni ñoom seen secteur dafa compliqué Euh, secteur bu complexe la agriculture déjà xam naa ni euh, parce que li tax Conté ma ne dafa dafa courageux par rapport ak euh, décision bi parce que kii xalaat ni liggéeykat bi nga xamante ni moo nekk ci tool yi wala mu nekk ci nag yi wala mu nekk ci leneen ak leneen mm-hmm. moom pour mu am benn subsidio téwén la koy am mm-hmm. pour ren mm-hmm donc xam nga bu yàlla defee jàmm ba ñu fàtte coronavirus déwén inshallah allah kooku xam déjà compte sóor na ni déwén ci heure bi kooku war na mën a dugal disoccupation agricole. Mhm. léegi kooku Conte mi ngi koy wax ne ko yow bu fekkee 2019 am nga cinquanta giornate di lavoro effettivi attention effettivi. Mhm. parce que néewuñu la rek sa contrat nekk du premier janvier ba le 31 mars déedéet. effective yi mooy li nga liggéey. liggéey waaw cinquante jours yoo liggéey ci deux mille dix neuf bi. compte mhm, mhm. la cinquante jours yooyu dina la permettre ma jox la un tantum di cinco cinquecento euro. Mhm. ci coronavirus bi parce que gis nañ ni problème yi am na nangam ak nangam. Euh, rax ci dolli. jour yi nga xamante ni yaa ngi koy toog sa kër te liggéeyoo ko. Mhm. dinañ la ko compter jaareel bu ne mu bokk ci jornaate yi nga xamante ni dañ la koy compter pour sa réquisite pour nga mën a dugal disoccupation agricole. dëgg mais kenn du la ko fay. dafay doon doon benn bonus bloqué. voilà maanaam mhm. day dañ koy neutraliser. Mhm. pour mu motali ce requisite parce que trop purtroppo quest'anno dana xawa jafé touti pour que ñu bari voilà dana jafé bari na bari na bari na zone yo xamni ni daanaka sax ñu am ay ka effectivement parce que déjà rek xam nga mois bi ñu bari ñu ngi doon commencer di ji heure bi ni di mhm. defarat souf di ji mhm. donc piantumazione bi déjà fa di fetto Euh, per kuy xam naa ni laboratoire yu bëri. dina dana feeñ dana feeñ ci dana feeñ ci liggéey bi. voilà dana feeñ ci liggéey bi. maintenant ñi nga xamante ni nag vraiment ren ñu ngi doon dugal disoccupation agricole yi. 31 mars la waroon a tëj. Mhm. Euh, ZLIT taare na ko pratiquement ba 1er juin. Mhm. waaw. Euh, donc kon su boobaa tam liquidation bi day day ZLIT taare. parce que. waaw waaw maanaam serre serre mën na ko dugal février waaw euh, bu bu may jotee rek mu ñëw taxawal la parce que en général noonu lay def ni pa Makhtar yaa ma dugaloon affaire bi lu tax fay ñu. waaw waaw jotaguma dara. jotaguma dara ñoom ñoom dootuñu xool IMS. yow mi ko dugal yow la ñuy taxaw poñe la. minute bu nañu woo ni la IMS joxaguma. effectivement effectivement. waaw Luis Litare Junior moom. kenn xalaatul mhm. commencé ko fay juillet. voilà loolu it loolu it wax dëgg yàlla ren moom defe naa ni. liqui yi ñu war a yëpp defe naa ni boo moytuwul juillet août septembre lay dem septembre sax laa wax. waaw ah. même trente itam même chose la. xam nga désoccupation agricole sax en général ñoom ñu ngi koy fayeeku entre juillet juin juillet août. Mm-hmm. donc euh, ñoom ku ci dem ba septembre euh, yaakaar naa ni du la wàññi dara. Mm-hmm. Euh, <laughs> ba noppi xam nga. dina arranger aussi sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom dañuy liggéey ci euh, azienda di trasformazione dei prodotti agricoli euh, mm-hmm. ak yu demee noonu euh, ak ñi nekk ci tool yi nga xamante ni bu tool yi jeexee dañuy ñibbi Sénégal te tey jii mm-hmm. ñu nga tënku Sénégal mm-hmm. ñooñu yëg avril mai danañu dellu si mën a dugal tranquillement aussi seen disoccupazione donc même ñi am naas bi même naas bi naas bi aussi ak Discol ñoom it zlitaare nañ leen xam nga 60 jours nga daan euh, def boo jeexalee liggéey. entro 60 giorni 68 giorni man man 60 giorni laay wax lavoratori yi parce que. otto giorni toujours ñaari weer bu la rëccee ñàkk nga. voilà voilà léegi nag euh, kii bi nu mu tuddati pro ak provvedimento bi provvedimento bi euh, boo jëlee 60 giorni yi teg na ci yeneen jour ba mu nekk. 120 euh, c'est c'est c'est record bien, ah hein. bëgguma bëgguma wax ki mais de toute façon yokkaat nañu ko encore. Mm-hmm. yokkaat nañu ko yeneen un mois et demi xawma deux mois dal mm-hmm. donc mm-hmm. ku am wara dougal dugal disoccupation normale actuellement ni jarul ngay wër dëkk bi comme tere nañu nit ñi dox togal ci kër gi. amuloo benn yakamti pour. ne dama koy dougal parce que déjà patronat yi boo fa démé kenn du la jël sur rendez-vous rek la ñuy recevoir. te rendez-vous bi sax seigne Pape lu urgent deug deug motax ñu la koy jox. deug la deug la. im ah. im si fi mu ne nii recevoir. voilà donc togal kër ga sur rendez-vous la ñuy recevoir. justement togal kër ga. yow bu yàlla defee jàmm boo vraiment. voilà bu yalla defee jamm inshallah nga dem récupérer ce feuille SR 163 dem sa banque ñu timbraareel la bu ko defee bu boobaa mobilité bi euh, dellu na mu meloon nga dem def sa disoccupation normale de toute façon période yi nga xamante ni yaa ngi koy toog nii yooyu yëpp dafay dugg ci sa biir disoccupation ims daf la koy fay c'est pas parce que boo njëkkee dugal rek bis boobu la lay fay déedéet c'est une machine ims la muy def xam na ko dana mën naay juum nag danay juum waaye ak nu mënti demee rek yow IMSS lam la war a fay xam na ko xam na ñaata contribution nga am cinquante per cento contributi yooyu moom la lay fay donc du juum ci yooyu donc na ci gars yi bàyyi xel bañ a yàkkamti pour dugal yenn yi bañ a yàkkamti pour bañ a dem ci ufficio yi parce que moment bi benn ufficio ubbiwul benn ufficio ubbiwul banque yi sax dañu dañu tëj bunt yi boo ñëwee ci ci ci ver eh, yi la ñuy waxan waxanteeg yow li ñuy waxanteeg yow boo amee looy kii nga ñu suruxal la ko ci ci ruqu vitrine yi nii nga def nga bind signé nangam nangam dem sa yoon. Hmm. parce que moment bu délicat la moment la boo xamante ni vraiment nit ñi dañoo war a toog seen kër noonu la ñu mën a xeexee virus bi pour mu jóge fii. Euh, donc appel boobu moom la ñuy moom la ñuy woo sunu sunu sunu mbokk yi. am na beneen particularité aussi. mais ñu ngi xaar décret parce que Bob aussi décret bi euh, renouvellement permet di se yi. Mm-hmm, mm-hmm. parce que parce que facteur bu am solo la ndax. fi mu mm-hmm. presque pour 30 jours. si si sénégalais yu nekk am fa ay séjour. Euh, am na ñu am na ñu sax ci donc ñu ribbee woon riche wuuta donc loolu yëpp war a nekk euh, defe naa ni euh, euh, décret boobu côté boobu lu war a am solo la lu ñu war a càmbar la ba nit ñi ko comprendre bañ a ragal tam bañu jàpp waaw man man tey rek maa ngi woote Rome sax pour laajte ndax xam nañu kañ plus ou moins kañ kañ la décret bi di génn parce que sama xel daa nekkoon ci ni boobu xaw ma woon ni sax wax dëgg yàlla dañuy def spécial tey ma ne ah naa ko laajte bu fekkee génn na rek ma wax leen ñu yónnee ñu ko comme ça dimanche aussi ñu baaxee ko mbokku taalibe yi mais nee nañ ma xëy na semaine bi dinañ génnee décret bi mais sëñ Pape xam nga dafa am benn particularité ci loolu euh, sëñ Pape dafa dem Sénégal mhm. ut kaari pendenti ak yooyu ut na mhm. ko depuis mois de septembre wala octobre pour defar nationalité. pour dugal nationalité. <coughs> sëñ Pape ñëw jamono bii tombé coronavirus dugalagul. Mhm. xam nga këyit yi mu uti woon Sénégal dafay scadéré. Mhm. moo tax man ñi may woo di ma laaj ci loolu aussi dama leen di wax xaar leen décret bi parce que décret bi bu ci wax syndicat yi danañu ñu woo euh, waxtaan ak ministre bi. soulevé euh, parce que ñoom ñoom ñoom ñooy dund situation yi ñoom ñoo koy mën Euh, voilà voilà expliquer confronter wu ministère effectivement effectivement mhm. effectivement donc Dal, en en gros Dal nonu lañ ko ni dina am dina am na ak yenen ak parce que euh, man mi vidéo conférence suba apparato euh, pour ñu nous décret bi nous yenen nous yi parce que instant bi ni ne jonn suñu ñun euh, vraiment ñu est ce que li ko war a gën a li gën a war a tax nag ñu def ko mooy euh, sénégalais yu bari commencé nañu parce que facebook yi déjà commencé nañu mm-hmm. defar audio di ko yónnee sénégalais yi mm-hmm. jigéen ñi am nañ seeni groupe whatsapp bonus ñëpp xam nañ ko jigéen ñi euh, man dama ragal ni dañu am jigéen yoo xam ni dañu nekk sénat ñi nekk caméra députato

maanaam dañ lay wax loi boo xam ni yow mii yow mii recevoir décret yi doo ko jot mm-hmm. ñoom ñoo la koy ñoom ñoo lay yëgal nii la décret sàngam génn na yow nga war a dem wuti ko te léeg-léeg mm-hmm. en sax duñu juum kon est-ce que mm-hmm. jaadu na tey jii ñuy ñuy paniquer di génn di dem di wuti ay rendez-vous IMS ndax fi mu ne nii lépp luñ fi def maanaam ña ko war a actuaré dinañ ko actuaré waaye génn waruta am ci mbedd mi rang mhm. war am dem ci patronat ndax duñ la recevoir patronato duñ la recevoir mhm. IMS parce que tam loolu dafa mhm. am solo ñu nit ñi te jii boo nee gars yi salaamaaleykum dañuy joxe cent euros bonus da ngay ku boot doomam génn jamono <laughs> yaakaar naa ni ah, boo dëgg fa yàlla euh, tëñëx boobu jaru ko am euh, si yaa ngi yaa ngi wax léegi cent euro mais décret bi am na lu mu prévoiroon Moj, moj, eh, ana, ana premio bi. Premio presença, wow, une Wow, <laughs> wow, premio wow, boobu day boobu nag cent euro yi ñu ngi dépendre ci sa présence. waaw wow. boobu mo ko wax parce que tey jii boo ko rek ñoom yaakaar nañ ni. yaa ngi ni premio de risultato. boo fa nekkee trente jours. wala bu dee eh. vingt cinque giornate la nga nekk vingt cinque eh. giornate yooyu cent euro yi mën nga koo jël. waaye boo fa toogee benn fan. Vale reddito, reddito complessivo bi sax quarante quarante mille euro sa reddito ak reddito soxna si jar na waaw donc da, man, man mii xaw naa koo taaxeerlu tuuti rek ma ne ma naa ko waxam duma ko wax ndax boo mën nga koo wax gars yi jékki-jékki ni ah comme loolu la naa daa laaj ditaa bi ndax soxla wuñu kuy baleeg yooyu loolu laay bañ génn <laughs> daal moom jamono ci moom toog ci kër yi gën sëñ nan toog ci kër yi rek nan toog ci kër yi yàlla baax Euh, dara yàq kër euh, euh, di di déglu instruction yi hmm. xool njaboot gi ndax it hmm. moment la wax dëgg fa yàlla man de damay damay wax dëgg fa yàlla hmm. am nañu occasion boo xam ni man temps yi li may am temps di toog ak sama waa kër géej na ma ari toog ak sama njaboot di santir seen chaleur ñuy daw di bëre di tëb sa kaw wax dëgg fa yàlla géej naa ko am lool lool lool lool lool lool lool te nag njaboot gi waruñu mën a toog ci kër gi rek ñu tëj leen fa. Euh, heure bi heure seetaan télé. Mm-hmm. la télé di xool jour euh, euh, notice yi baax na. waaye nag mm-hmm. moment la boo xam ni da ngay waxtaan ak sa njaboot expliqué leen. Mm-hmm. mu xam àdduna xam ñuy surtout. waaw expliqué leen maanaam ndax ndax njaboot moom. ni ko euh, euh, euh, waa kër gi di toggee rek ni koy hmm. tabaxee rek ci la ñuy màggee profité hmm. ci xoolaat équilibre hmm. yi communiquer ak communication ba léegi waxtaan am na xeet nu ko olof mën a waxee communication mooy maanaam fexe ba sa waa kër ñeme la ñeme la waxtaan ak yow ubbeeku ñu ñu jox leen tuuti amour amour maanaam amour maanaam cofeel gi nga xam ni dafay hmm. manqué wax dëgg fa yàlla xale yi dañ koy manqué fii. Hmm. ndax hmm. dañuy wax rek suñu njaboot gi fii. dañoo rafle ak amul buñ ko waxee waxuñu ne ñëpp noonu lañu ñu mel. mais da xool rythme bi ñuy dund. Euh, maanaam euh, tey jii euh, sama classe gi da xëy sept jours sur sept yaa ngi carburé. boo demi liggéey sam ak dimanche yaa ngi daayira réunion. daanaka maanaam chaleur paternelle. bi nga xam ni xale yi dañ ko war a am ñëw tëdd sa kaw toog nga seetaan ak ñoom dara dégloo ndoog ñoom xasida wala sax ñu ñu jàngal la benn benn benn taril la seen seen alxuraan wala seen l'école ñoom ñu am ci fierté wala ñu defal la benn dessin ñëw nga def ak ñoom laboratoire ñu gis ni sama pàkkat mi ngi mi ngi mi mi ngi am mbégte ci liggéey bi may def loolu maanaam dafay amaat lu muy def ci ci ci gone yi buñ ko xeeb Euh, suñu famille yi ñuy soxla amour suñu soxna yi te ñun hmm. nag léeg-léeg dañu xaw a dañu xaw a siis ci amour maanaam dañ ko xaw a nay nay nay hmm. nay mooy kàddu gi joxe hmm. cofeel te nag boo xoolee l'islam ak euh, ki nga xam ni moom lañ daan topp muy sunu référence di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko yaatu la woon ku ku ci amoon la di ko joxe di ko jox jàmm di ko jox njabootam di ko joxe ci diineem li laay war a suul yi moment bi nañ ci nañ ci dellu si waat mhm. jëlaat yenn habitude yi approprié waat li nga xam ni ñun ñoo ko moom pap ndax nag ah, dafay defaraat euh, dafay defaraat sunu sunu njaboot yi bégalaat euh, mhm. euh, sunu soxna yi di leen wax lu mhm. leen neex di leen jey ndax du ci ñàkk du ci yàq dara dafay yokk rek Euh, moment yi nga xam ni. jàkkaare dafay am mbaa du ñu yéegal mbagg boo leen jaayee. non mais mënut a ñàkk mënut a ñàkk eh. léeg-léeg sant Ndiaye nga ne ko Ndiaye bala Aïssa. waaw waaw xam nga xam nga xam nga tiitaange bu amee ci ci ci biir adduna bi. Mm-hmm. da ngay war a mën a euh, euh, kañuwaat sa biir. njaboot ironiser tuuti ironiser ironiser bu tax doole. Mm-hmm. ba nga xam ni mm-hmm. tey jii lépp lu ñëw da ngeen koy mën a affronter ak sérénité. dugalaat ci ci njaboot gi période bi ñun ñëpp ñu ngi ci kër yi fexe ba dundal jëlaat jëlaat maanaam diine mu xeeñaat ci biir kër yi xeeñal ko ci biir kër yi mooy maanaam waxtu yi waxtu jàng alxuraan la waxtu jàng xasida la te ji kër yi euh, jël théâtre yi nga xam ni dañ ko daan teg man mii nga xam ni du ma tardé benn théâtre théâtre bu ñëw ma seetaan ko euh, hmm. fexewaat ba jëlaat suñu njaboot yi teg sax tegi jii mën nga tek youtube bi xolal mm-hmm. ay ay ay xasida wala alquran nga xamni ni tey jii boo amee computer euh, def lu mel juma euh, maam euh, application juma ji nga xamni bu waxtu mm-hmm. noddu jotee day noddu nga wara mëna mën a mm-hmm. ñëw tey jii kër gi bo amé dom dom bo amé sax ku mag nga ni ko jiiteel mu jité bu ñu paré nga ni ko defal dog waxtaan donte da ngeen di laayante biir ci benn xisa sëñ bi loolu ay defaraat njaboot gi Hmm? valeur ajoutée la de. valeur la te it nag. Hmm. saa euh, xamuñu ndax suba àdduna day tukki. Hmm. war nañu góorgóorlu ba li li li euh, euh, liy mujj ci sunu àdduna. mu wóoruñu de am na lu ci yàlla nangu. loolu nag da def loo xam ni maanaam jéem a góorgóorlu sax sellal jël benn pan pàcc. maa ngi jégalu xam naa tey Ablaye di sëñ Ablaye dina ma ree waaye góorgóorlu. ni tay ji sax na jang ben ben isib wala wala wala wala wala ben xasida ma jëm ko fi jang mais du du du don du don lu vide nga xamni da ngay tok toute la journée ci bir kër gi liggéey wu ñu def ñu dara ñu tok ak hmm. ki jël xasidaam ki jël téré ké di ké ké bu mënagul faire iji commencé aba jadda hmm. yow nga jang ben xasida soxna si eh, kenn jël kursam salatu ala nabi wala nga sax distribuer ni nañ leen def 10000 Euh, salaamun xawlan min rabbi rahim joxewaat euh, subhanallah wa bihamdihi yooyu mhm. dafay nekk loo xam ni tey jii xale yi mën nañ ko fowee mhm. dañuy dem ba ay rabbana atina fi dunia asanatan bu ñu jullee ba pare nga ni kenn na ko na ko def ñëpp topp ñëpp topp ci mais loolu mhm. dafay solivi sol ñun suñu waajur yi loolu lañ yore woon suñu waajur yi def bu julli jotee bu ñu jullee ba pare bu euh, kilifa gi wëlbatiku joxe ñaan ñëpp topp ci lu mu wax ñu topp ko mais loolu lañ daan dund. Mhm. mais société boobu ñun ñoo ko bëgg a réformer mais société mhm. boobu ba léegi moo fi am te saa yu ñu jaaxlee nag ci la ñuy dellu si sëñ Pape Mokhtar. mais sëñ Pape est-ce que du euh, c'est le moment ou jamais xam nga maa ngi koy wax sànq ne la euh, réew mi dana dana am feneen fu mu teguwaat la woon démb dootul doon ëllëg. Euh, boo xoolee feebar bi ñaanuñu ko yàlla naam waaye la muy soppi dana bari lool euh, ndax boo xoolee Chine mm-hmm. euh, inquinamento bi nam fa meloon dañ na mm-hmm. Mm-hmm. dafa dañ completement lu jaaxal ñëpp Chine ni mu ni mu ni mu meloon ci ci ci lëndëm ak ak poussière bu bon ak air bu bon boobu booy nooyi dafa dañ complètement Italie Europe gi Europe gi ci loolu lañ jëm changement climatique bi. ma ngay mhm. commencé dellu na meloon. Mhm. maanaam climat bi mi ngi commencé di dellu na meloon mais xool ko nii période bii nii mars. Mhm. lii mooy mars normal. waaw lii mooy mars normal. kenn waxtu fi kenn waxtu fi ozone bi de kii bi maanaam euh, kii nu ñu ko waxati euh, euh, targa alternati wala fermo dominica senza auto voilà mu ngi noonu kon xam nga yàlla suñu borom am na loo xamante ni bu ko nit ñi nammee te moom nammagu ko mhm. day jël taawam def ko ca anam ba mu ko neexee ak ba mu ko mhm. soobee mhm. léegi nag ñun lañu war rek mooy ñu ñu am cib njàngat la nga xamante ni manqué woon nañ ko ci biir kër yi te ñu mën ko tey jii ndax yàlla euh, xiir lañu tey ci toog ci biir kër yi ñu góorgóorlu njaboot gi dëgg ay dir bu yàgg depuis septembre ba léegi xalé yi ñu ci tuba bi hmm ñu profito ci dir bu gatt bi rek jëm leena tafat ci suñu hmm waaw keur rëjëx rëjëx gi bari na euh, daw bi bari na kom gi bari na waye comme am nañu période bi rek nañuy profito luñ ci mëna def rek ci ci njabot gi ñu def ko ci ñom et puis buñu ragal expliquer xalé yi aussi lan moy coronavirus bi ak na nga leen koy expliquer. Mm-hmm. bu leen paniquer. bu leen bul indi ci ñom ben psychose ba ñuy ragal a bul indi ci ñom aussi ben euh je sais pas ba ba ba mu traumatiser leen mhm. mais xamal len ni febar la et puis expliquer len yenen febar sax yu fi amone pour que mhm. ñom ñu préparé wu que ni ñoom it ëllëg ci biir mën tomber ak ñom seeni jamono ñoom it yeneen épidémie wala yenen pandémie donc il serait préparé mhm, parce que jamono moom mo tëddee nonu jamono mo doxé nonu Euh, feebar yi du fi du fi jóg. Mm-hmm. feebar yi du fi jóg. kon mm-hmm. euh, vraiment nañ ci góorgóorlu nañ góorgóorlu ci njaboot gi nañ góorgóorlu ci ñëpp di woo nit ñi aussi ci euh, ci dal. Mm-hmm. ànd ak dal ndax wax dëgg yàlla à part benn ñaar yi ñuy dégg sénégalais bi kii nangu nañu permeem kële def nañu lële kële def nañu yooyu yëpp mënta ñàkk ndax benn benn yi moom mënta ñàkk waaye Mm-hmm. gis naa benn film bu ma tiital benn jobeen la xam naa naar la waaye job la sant. Mm-hmm. naa la ko yónnee. maanaam maytul sëñ Ablaye dugg de ci stock. Eh. ba suufu lal yi sax daf ci def farine suukar maanaam kër gi. amatuloo mm-hmm. forno yi. maanaam carottes yi ay kees la jënd kees. waay. Ah, loolu yëfi dof la sëñ bi. léegi loolu est-ce que xam nga ni day yàqu. Euh, xëy na xëy na yeneen dëkk yi ñoom mën nañu am problème boobu mais ñun Italie fii amuñu problème problème mu euh, problème mu distribution denrée alimentaire. nañ ci dalal xel Sénégalais yi. non non non ñun ñooy euh, ñun ñooy distribuer xoolal la preuve démb Modou Diouf mi ñu koy wax. waaw Slovénie dafa bloqué woon ay camions. mais bi ñu mm-hmm. demee ba xool ko xam ni lii du seen kii 400 camions la ñu ubbi.

ñu ne ko hmm. manqué nga bagage mu jënd a dugal ci biir walis yi sëñ bi loolu dafa yéeme. <laughs> mais nay nay weesuwul loolu yow loolu loolu nay la de <laughs> ndax bëggul maye kilo <laughs> bëggul maye kilo. mais en tout cas daal en tout cas daal mi ngi noonu. xam naa nag yóobeen yi dinañ ma wax dara ñoom moo rek. sama gars yi sëñ Ablaye sëñ Ablaye moom moom moom mooy sama sëriñ waaye dama cee bari ay ay ay ay ay ay gars yoo xam ni daal. maanaam ñu <laughs> lu ne rek ñu ngi ca leneen. jarul jarul daw ay daanu jëkkante dem ci supermarché yi. Mm-hmm. di di di di xëccoo ay ay bagages wax dëgg fa yàlla jaru jaru ko euh, jaru ko euh, jënd lu yem. dara du yàqu ci kër gi doo am problème. te it léeg-léeg sunu sunu sunu frigo yi bu mm-hmm. feesee. Euh, ni muy conserver ñam yi mën na bañ forme léeg dem ba euh, euh, ñam war a war a defar dafa lore. Euh, mm-hmm. loolu. dara jaru dara dara jaru ko ñu xool it bu ñuy dem ci supermarché yi di seet yenn waxtu yi nga xam ni nit ñi duñu bari. ñu mën a mm-hmm. éviter nit ñi te di di fagaru. li ñu waxoon mm-hmm. xeetu fagaru yi. booy dem ci supermarché yore say gants te karel lo beeg say gants wala nga wut gants wu plastique yi ñuy def ci. plastique yi waaw.

bo ñëwé bala ngay dugg sa auto bo amé sa gel nga raxas hmm. sa gel ak sa loxo ba nga xamni ni baar beeg yëpp doo transformer transporter ben germe bo ñëwee ba hmm. sa buntu kër nga hmm. fexé ba bala ngay dugg nga sumi say dal wax dëgg fa yalla jël dal yi nga gëné won ci biti am foko ber bañ di dugg fu nekk nga dugg ak mom waaw loolu it ay ay ay euh dispositif la yo xamni waxuñu ko pour tital nit ñi waye dañ koy wax ndax ndax virus bi yorul ay mm. laaf di naaw nit ñi ñoo koy yóbba yóbbaale. nit ñi koy yóbbaale waaw. koy yóbbaale nag méthode yooyu lañuy seet. ba ñu ko mm. mën a wàññee ñu wàññi ko. Euh, mm. ñaari semaines yi dañoo joxe ay dispositifs nee nañ nañ toog ci kër yi ku mën. génnal benn yoon nga dem dugg li ngay dugg toog li ci des boo liggéeyul nga toog semaine bi yëpp sa biir kër. yaakaar naa ni toog sa biir kër noppaliku rek la lay indil ak jaamu yàlla du la wàññi dara sëñ Pape. waa sëñ Pape man est-ce que ñun xaabaabaluñu sax. waaw moom <laughs> yaakaar na war sax. Euh, waaw yaakaar naa ni ñun dañ le woon une heure de temps waaye xaabaabal nañ ba une heure trente. dëgg la dëgg la dëgg la mais sant sant yàlla rek xanaa euh, waxaat nit ñi rek delluwaat di tënk niñ ñi euh, di leen ñaaxaat ci mesure de précaution yi. Mm-hmm. Euh, autocertification yi nañu ko nañu ko compilare man sànq bi may ñibbisi maa ngi romb Eurospin mm-hmm. eh, ci rond bi nii rek ma seen carabinieri sax ñu ngi taxaw buntu Eurospin mm-hmm. xam naa dañuy xool ku génn ñu laaj la autocertification parce que nit ñi dañuy génn dox seen benn soxla dellu siwaat jàddaat fi jàdd fale jàdd fale xam naa loolu moo tax ñuy ñuy ñu taxaw sama paa bi ah. bi mu dugal sànq ci Facebook bi mu ànd ak soxna si ñu contrôlé ko mu yore mm-hmm. auto certification bi soxna si ñu laaj ko mu ne ko non sama jëkkër xamul produit yi xale yi ñoo ci àdduna bi non loolu moo tax nag virus bi law ndax dañoo dëgër bopp mm-hmm. xoolal xoolal actuellement lan moo ko yóbbu ci sidd bi parce wa sud bi nekkoon fii ci nord bi ragal hmm. nañu tiit nañu jël seeni bagage daw hmm. donc ça veut dire que euh, mooy li ngay wax sànq rek nit ñi ñoom ñooy yóbbu virus bi fu mu jëm loolu nag moom mooy moom mooy indi euh, muy muy muy law muy law fu nekk mu dem fa mais hmm. li ñuy wax rek mooy ñun ñun sénégalais ñun duñu dem kë duñu duñu jaabante kër yi tubaab <coughs> ñun ci suñu biir la ñuy demalante euh, te jamono bii comme lii am na te kenn xamul fu mu taq li gën mooy ñu bañ koo taqal suñu bopp ndax nag euh, du ma ni ku ci taq yaa taqal sa bopp déedéet waaye yàlla rek moom moo xam waaye boo toogee rek ci euh, tënku ci ci ci disposition yi yàlla mën na laa dimbali waaw yàlla mën na la dimbali euh, dañuy ñaan yàlla rek mu dimbali ñu ba dégg rek doy ñu ci ba tax na bu ñu toogee jàpp suñu njàmbur ah bu ëllëgee comme ni ko président Conte waxee ci abbracceremo hmm. euh, euh, domaine yi euh, donc nañu toog jàpp suñu jàmbur bu hmm. yàlla dogalee lii yëpp weesu ñu delluwaat ci suñuy koom hmm. dellu ci suñuy koom parce que bu ñu toogee suñu kër yi xëy na sax waa Sénégal seen xel ci lay gën a mën a dal bu buñ la déggee sax génn nga téléphone bi modul dalu hmm, hmm, bi may wo soxna si mag mana euh waaw pamatar mba mba génn lo mané ko lo ngi bureau bi mune ma lan lo fay def mané ko way mais mère man dama liggéey damay liggéey hmm. <laughs> ma ngi tak sama masque yu sol sama gant sama bureau dugg recevoir ma kenn dama am nak sama liggéey yo xamanteni ma il faut ma di def di bind ak di defar ak yooyu loolu mënta ñàkk waaw amna yo waaw nga def ko nag ci biir bureau bi boo fa nekkee yow kese mais dans la semaine bu nit ñi di jaabante ci bureau bi yu bari doo ko mën a def. dëgg donc liggéey liggéey jàpp sa njàmbur boo fa jógee jubali sa biir kër toog jàpp sa njàmbur saafonteeg njaboot gi. Mhm. loolu am na solo. lanu manqué woon nag vraiment ci njaboot gi ñu jéem a profité ci moment bi pour rattraper ko ci xale yi mhm. xam naa ni sax dana xaw a jaaxal xale yi mais ils nous comprendront incha allah. Mhm. <laughs> soobee yàlla waaw sëñ tàggoo rek. Euh, euh, di kontaan lool vraiment ci ci ci ci édition spéciale bi parce que c'était un devoir aussi. Mm-hmm. ñu gindi nit ñi ci ci euh, mesures yi nga xamante ni dinañ ko gën a faram fàccewaat incha allah. décret mm-hmm. bi ci boppam génnagul mais ñun dafa am lu nu for ci weewu nag rek. Mm-hmm. moo tax ñu ci profito eggee ko suñu mbokk yi. yéeg mbokk talibé yépp mhm. euh, bu ko défé inshallah xamna bu dimanche rek dañ ci ci wat ci mhm. carton yàlla ko yaatal gën ci mëna digënté bi dana fekk ñu ñu gën xewtal euh génné ci yenn mbot yi mhm. euh, ñu mën ko éggé ñëpp ba mu lér ci ci ñëpp xamna ni gannaaw loolu it danañ ko danañ ko danañ ko def aussi ci ci publier ci page Facebook yi ak yooyu pour que nit ñi nit ñi mëna a informé wu di wax nit ñi nañuy dem vers l'information ndax radio bi vraiment nit bo bu la émission bi rawé sax mën nga déglu waat pour xam lañu wax ci lo xamanteni ngeenel la ci yow mm-hmm. euh, donc nit ñi nañuy dem vers l'information parce que jamono lañu toll bo xamanteni ni bu la information rawé rek yow mm-hmm. euh ñooñu ñuy waxtané sank ci introduction bi di wax ni euh, fanatisme bobu ñuy wane seen ñàkk informé wu moo leen di yóbbee fenn fi ak xëy na tuuti ignorance sax dana leen dal mais mhm. d'une manière générale ñàkk informé wu xëy na moom moo leen di dal ba ba yenn yi ñu koy wax parce que nit ki mhm. boo dégloo ñi nga war a déglu wax ak ñi nga war a waxal yaakaar naa di nga mesurer say parole loolu di xam fi ngay waxe ak xam ñi ngay déglu euh, donc vraiment ñu ñuy jéggalu bu baax euh, li fi wax yépp bu ci dara dëngee rek suñu ñàkk di la lépp lu ci jub rek yàlla suñu borom la di leen jox dox daje xam naa incha allah ba dimanche bu soobee yàlla di la gërëm bu baax sëñ Pape ci disponibilité bi yow it di sant bu baax ak jéggalu ci Baye Fall ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool caam euh, euh, di ziar ñëpp euh, di jox dox daje rek ba dimanche incha allah jërëjëf sëñ Pape. jërëjëf jërëjëf sëñ vraiment. Euh, ci sa disponibilité ak euh, xalaat bu rafet bi waaye it ñu ngi sant euh, auditeurs yi nga xam ni ñoo àndoon ak ñun tey jii si émission bi bi mu tàmbalee ba léegi di di ziar suñu mbokk yi nga xam ni tam vraiment saa su ne ñu contribuer di ci wàllu message léeg-léeg di di joxe seen xalaat di ñu laaj ay demande sëñ Baro sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima Ndiaye ndeysaan Euh, ak mbokk taalibe yu bari yoo xam ni daanaka dañuy dugg saa yu ñu tàmbalee maa ngi ziar sëñ Bala may sa caam euh, di ziar euh, mbokki mbokki mbokki yi nga xam ni ñoo féetee féetee Toscana vraiment ñoom it dañuy topp saa su ne waaye di sama sama jigéen soxna Astu Baabu fële ca Brescia di ziar soxna Ndey Njaay Fàllu di ziar daal mbokki mbokki mbokki auditeurs yi nga xam ni ñoo nekk ci rajo Xassida online di ànd ak ñun liggéey bi yëpp ñu ngi leen di ziar waaye di ziar euh, njabootu waa kër Serigne Fallou ko waxee rek dañuy jiital seen xalifa Serigne Abo Baraka di ko ñaanal suñu borom may ko wér euh, mu yàgg fi lool ànd ak magam ju baax ci Serigne Mountakha ak euh, mbokkam yi baax yi nga xam ni ñoom la njabootee. ba liggéey bii nga xam ni ñoom la fi yàlla teg ñu ñu ñu mën cee eh, yokk ba ba ba ba ba ba weesu seenu njot eh, di di ziar waa kër Serigne Fallou yi nga xam ni ñu ngi waajal li nga xam ni moo di màggalu Kazu Rajab ñu fas yéene ko def incha allah dimanche bi ñu jëm waaye dégg dégg si eh, ndigal li nga xam ni moom la xalif général joxe Serigne Abo Baraka. Euh, dëggal ko mu di màggal gi ren dimension bi mu am mu di euh, taalibe bu nekk fa nga nekk euh, na fa nanga nga fa na waaye nu ñu éviter li nga xam ni moo di attroupement yi yaakaar naa ni tey jii taalibe yu nekk ndakaaru war nañu mun a toog ca ndakaaru jàng seen alxuraan jàng seen xasida fas yéene bu ñu paree yeeweeku ñu nekk Touba def noonu fu waay nekk def noonu yaakaar naa ni buñ ko defee euh, euh, dinañu topp ndigalu ndigalu xalifa waaye bu ñu bu ñu bëggee def euh, lii nga xam ni moo di ku ci nekk mooy li li li gars yi doon wax ci ci réseaux sociaux yi rek Ila Touba daanaka day mel ni dañuy wàcc sax ndigalu kilifa yi bu ñëpp jëmee Touba rek la la borom dëkk bi wax. kilifa euh, euh, murit yoonu murit def wax rek daanaka dañ dañ leen di wàcc ndax jamono ji ñëpp xam nañ euh, sensibilité bi am ci attroupement maanaam risques yi am ci manque d'hygiène bi nga xam ni moom moo moo am ñëpp gis Touba la xew actuellement mooy primo focolaayo bu Sénégal Sénégal moo deuxième pays bu nga xam ni ci Afrique moom la corona bi gën a laal Touba dem ba nga xam ni dañ ko wutal centre spécial euh, fële ca Daaru Marnaan di fa di fa téyekaay tey jii bu ñu demee ba ba def task force boobu nga xam ni gouvernement bi daanaka ñu ngi déployé wu euh, ay ay ay ay ay agents sanitaires ñu war a dem am taxaw bu ñu war taxaw ñun koy taxawaay ba ñu war a am mooy topp kàddu yi nga xam ni moom la xalif général bi waxoon. Euh, Euh, signal bi mu joxe génne alalam ba pare nag euh, taxaw ci tuubaa am cet ba nga xam ni lu fa ñëw lu fa bokkul ñu ne ko coppit génnewaat loolu mooy rôlu murit taalibe waaye ni du euh, taxaw di wax ni damay faatu ci biti ñu yóbbu ma kon su ma demee Touba su ma faatoo day gën a yomb wax jooju wax la buy gàcceel murit waaye du ko du ko jox sax ni ñun góorgóorlu ci ci ci ci yenn habitude yi ñuy wax ndax nag euh, defe naa ni euh, euh, Sëñ Tuubaa dañoo war di di ko sagal mooy taalibe bu bu koy mbubboo rek buñ la gisee ku la gis naw la boo waxee ku la dégg am cofeel ci yow boo doxee wala nga toog wala nga jëf ku la gis am ci ku gis jëf ji am cofeel ci yow waaye di wax wax yoo xam ni nit ñi dañuy toog léeg-léeg Euh, duñ la sax manque de respect waaye xëy na sa kilifa la ñuy manque de respect loolu nag day mel ni yow yow yaay tuumaal sa kilifa kon nañ leen di bàyyi xel ci loolu bu baax euh, di sant mbokki bi yëpp ñi ñi nga xam ne ñi ñuy déglu ak ñi ñi bàyyi xel ci ñun di à travers messagerie Facebook bi euh, mënuñoo lim waaye ñi ngi ñi ngi sant ñëpp rek waaye nag sant bi ñi ngi ci jiitalaat suñu jëwriñ suñu technicien Modou Mbaye Thiam Baye Fall di sàkku ñaan ci auditeurs yëpp ñu ñaanal ko ndax rajo bii de bu ñu demee ba am instrument bi nga xam ni tey jii euh, mën naa ni euh, euh, communauté yi mën a am ay technicien toog di leen càmbaral décret bu ñu voté y même pas quatre heures de temps rajo Xassida Online rek ku mun xëy na ak sénégalais yi koy def waaye bariwul communauté yi ñu koy ñu koy def tey jii nekk en direct nga xam ni sénégalais bu ci nekk da ngay toog sa kaw tëdd sa kaw lal taal sa application téléphone di am di am instrument yi nga xam ni ajournement yi Italie def mun ko dégg ci sa làkk ah ñun ñu fi njëkkoon de euh, xalaatuñu woon ni lii dana musa sax am ndax ñun jamono yi ñu fi nekk ñun ñu nekk Toscane ku ko fàttaliku tiir moo fi amoon benn télé boo xam ni dimanche ba dimanche trente minutes lañ daan am émission euh, sunu mag Pape Diaw moo ci daan def émission en italien léeg-léeg tuuti ci wolof euh, mu nekk loo xam ni daanaka ñi nekkoon zone bi yëpp dañ ko daan xaar tey jii bu ñu demee ba am ay network yoo xam ni daanaka dañuy mën di nekk en duplex fii ak Sénégal fépp fu am xew-xew ci Italie ñu mën ko am en direct kon nag war nañoo sant yàlla ñaanal mbokk yi nga xam ni ñoo def instrument boobu waaye di sant suñu jëwri ñi nga xam ni it ñu ñooy ànd liggéey bi ñu ñuy xelal euh, bu ñu gisee lu rafet ni ñoo lii kat ko defee dina baax ñoo it ñu ngi leen di sant kon mbokk yi loolu tey jii moo doon spécial diaspora ci décréto Cura Italia ñuy ñaan suñu borom may ñu tawféex ba ñu fekkee dimanche ak jàmm bu ñu ñëwee bu fekkente ni am na yu ci génn yu mel ni décréto applicativo yi ñu mën a gën a dugg ci eh, ci ci ci ci technique bi pour mën leen wax naka la ñuy amee euh, tel bonus ak nangam ak nangam. ba ba yi fi gën a mën a leer ci Sénégal kon mbokk yi seen xarit seen doomu ndey seen ndongo Pape demb ak euh, sëñ Pape Mokhtar Tall ñu leen doon digtal diaspora spécial euh, Cura Italia fii ci rajo Xassida online ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall wasalaamualeykum wa wa barakatuhu jërë ngeen jëf